Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah senegal mang len di nuyu ku ci nek ci turum ak santam di jéggalu wax yi may wax na dana am ñu mu nakari dana am aussi ñu mu neex mais duma ci juum itam na ngeen mako djegal rek te xamni suma xalaat lay joxe ci li xew ci dëkk bi ah te ñun ñi nek ci biti wax deug yalla di ko naqarlu mais nag bettuñu bu fekkee le président yi dafa ñëw mu def li mu def wax li mu wax bind li mu bind jël ko yëpp teg ko ci suuf weddi ko sànni ko sa xaj mais warul bett kenn parce que fii la toogoon télévision ñëpp di ko déglu mu weddil tey président Sonko euh, safur la premier ministre Sonko ne musul dem ci Adji Sarr xamu ko muy benn kon kooku ah bu fekkente ne ku dul wax dëgg la mën nañ wax ne waxul dëgg beneen bi fii la taxaw tam magistra yi dëmm yu war a jàpp Sonko daggate ko jox ko toggal ko yow Macky Sall di bi mu lekk bañ tëj ko ci beneen bi taxaw na fi ñàkk kersa El Hadji Diouf ñàkke boo xam ne tey bu ñuy wax ne dafa yaru ax dafa maandu yooyu mu def yëpp wax dëgg yàlla dara dara dara dara wanewu ci ne nit ku maandu la nit ku kuy wax dëgg la kon lii bu amee duñu bett mais nag dafa am loo xam ne itam population bi ñu ko def moo koy mën a fayal boppam waaw afi Sonko moom duma taxaw ci ay waxam parce que nit koo xam ne ba ñu la xamee ba léegi ah man ci sama bopp sax laay wax ba ma ko xamee ba léegi musuma ko dégg mu wax loo xam ne dëgg la waaw kon nag kooku ñi koy déglu ak ñi koy gëm ñoom la engagé wax dëgg yàlla waaw léegi nag am na loo xam ne metti na Sénégalais yëpp ñu ngi koy vivre waaw ku ko wax metti na ku ko waxul metti na ku ko nangu metti na ku ko nanguwul metti na am na ñoo xam ne seen ngor seen jom may na leen ngor eh, mettit yooyu ba yëpp yëpp yëpp dañ koy jël di ko muñ téye seen carte nag bi xaar bës boo xam ne bës bu eh, set la muy jour élection yi nga xam ne moom le président fixé na ko le 17 novembre nga jël sa carte dem seet ka nga xam ne moo la doy kii nga yaakaar ne mën na am indi coppite ci sa dëkk nga jox ko waaw même bu fekkente ne ñoom Jomaay ak ñoom Sonko la ñuy voté alhamdulilah <coughs> parce que nit ku nekk gëm-gëmam bëggam yéeneem ça l'appartient waaw kon nag man lii dong laa ci amoon loo xam ne dama koy wax duma wax votelal diw duma wax diw baaxul duma wax leneen mais nit ku ne fi nga toog sa akkulay taalaa xam nga ne lii nga eh, nga war a def yow xamal nga ko sa bop bokay def nak bu la ci kenn xaptal bu la ci kenn jital bu la ci kenn forcer bu la 5000 tax def bu la 10000 000 def na la sa digganteeg sa borom ak sa sutura ak sa terang bop kese kese kese kese tax ngay def waaw alaykum wa rahmatullah ma ngi jéggal bu baax di len sante di len gërem di ñaan yalla yalla yombal suñu nek ci senegal ak ci aduna bi inshallah merci beaucoup